<laughs> position <laughs> <laughs> bi yaakaar naa seen prochain recours ci li mu jëm mooy photo bi daa leer photo Sonko bi ci bulletin bi daa leer dañu def recours pour mu xaw a fulu dëgg dëgg dëgg wax photo yu neexut a ñeme nag li daa leer lool moom maam boo boo noon entré ci bureau de vote bi da koy séen muy melax ndax da leen a gën a leer Ah, waaye sëñ dëgg-dëgg nag ku nekkul ci photo yi nak ci bulletin ba pare gañ a élection wax dëgg yàlla nga ne nga nekk ci bulletin yi da da ngay ah <laughs> projet recours moom xam naa ne nan wàññi photo bi leeraay bi day ëpp dañ koo xàmmee ba mu ëpp ci la recours bi di jëm <laughs> ah yow <laughs> recours yi ñàkk fay di kenn du koo mas a gis waaye di leen yéen de wax dëgg yàlla ndax waaye photo photo yi képp boo tegee ci bureau de vote chaque campagne mu gañe barke alquranu karim bu ngeen bàyyi woon ñu campagne xoola jour wat ba jot ñu jël bulletin yi teg ci bureau de vote billahi wallahi ñu am majorité <laughs> photo yi daa leer def leen recours ba mu neex leen photo yi daa leer